Salam alaikum beaucoup internautes du Tiaroy Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dal leen ak jamm ci seen benen numéro Tiaroy matin Tiaroy matin nak comme ni ñu koy défé sa su nek mu nek plateau bu spécial bu nga xamné dañ koy amal du lundi au vendredi à partir de 17h ñi waxtané lépp lu jëm ci xibaar waye tamit di ci suñu sponsor bu mag bi de borom troisième menuiserie métallique Mansour nek feulé ci Tali Diallo en face li nga xamné moy curseur. Kër Sër soo pont bi rek lépp lu nga xamné ci walum porte en fer en aluminium waye tamit ci wàllum meublement rek so démé feulé ci Mansour di nga ko am képp ku ko bëgg jot mën nga ko woo ci 77 975 75 95 waaye tamit émission bi ma ciy ànd ak sama naataango di Cheikh Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw euh, Omar maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax sunu mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan à travers euh, notre site ou bien notre page euh, Facebook Thiaroye Info TV. di ko jaajëfal bu baax a baax moom laay ànd sax ci xibaar muy Cheikh nekk sama naataango waaye fi ñuy dooree xibaar yi rek muy coowal étudiants yi gis nañ ne jamono ji ginnaaw grève yi amoon fële ci université am na ay sanctions yu nga xam ne dal na bu baax a baax ci yooyu étudiants. waaw mu mel ne démb ci altine ji sanctions yi yi daal dinay daanu rek lu ci toll ci 88 étudiants rek daal leen leen sanctionné euh, mu nekk lu doy waar bu ñu demee bu nga xamante université ñu xamoon euh, mu nekk daal euh, lu nga xamante ne doy lu ko vraiment mu doon lu doy waar te sanction boobu tamit jàpp naa que lu baax la pour ñeneen ñi nga xamante ne

ñu wax Abdou ci leneen muy li jëmel ci wàllum troisième vague jamono ji mu ngi lëmbe li nga xam ne mooy Sénégal ba président de la Macky Sall sax moo ngi ci yee yàgg waaw Omar noonu lay demee ginnaaw bi mu amalee tournée économique bi ba pare sax euh, démb rek ci altine ji moom ak ki nga xamante ne moo di Macky Sall nekk président de la République du Sénégal jël na ab rek euh, daal di arrêté waat li nga xamante ne moo di rassemblement yi mu nekk lu nga xamante ne nag euh, dina indi jiixi jaax ci wi ginnaaw moom bi nga xamante ne def tournée économique am ñu bëri jàpp kat yi loolu day frais na ñi nga xamante ñoo nekk ci ëpp opposition opposition bi mu doon lu nga daal euh, dina andi polémique fii ci diwaanu Sénégal Omar dina andi polémique bu baax a baax parce que ñetteelu vague bi moom comme niñ ko ci Sénégal ak à travers le monde entier jamono di gis nañ ne mi ngi commencé di dugg fii ci Sénégal waaye tamit président de la République bëgg ci jël ay dogal ñenn ñi nag di samp laaj ndax nekkul dogal bu nga xam politique kese moo ko lal ginnaaw bi nga xam demal amal na ay tournée ba pare bëgg xañ rek ñi nga opposition bi ñu amal seen i tournée ñu jàll wax ci leneen muy wàllum li nga xam ne entrant jamono ji gis nañ ne suñ ay rek wala boog suñ ay doom tey la ñuy li nga xam ne mooy examen yooyu waaw Omar noonu lay demee tey ci talaata ji la ñuy li nga xamante euh, euh, a mooy CFEE bi am solo xam naa ñu leen di souhaité bonne chance rek xam naa fi li nga xam mooy xibaar yi jàll suñu deuxième partie mooy li nga xam ne mooy wàllum trafic yi orange jamono ji am na réaction yu ci commencé am waaw waaw ginnaaw bi nga xamante ne client orange yi amal nañu benn ab doxu ñaxtu li nga xamante ñoo di waa orange wala waa Sonatel rek euh, daal nay joxewaat ak yeneen nouvelle tarification ah, mu doon lu nga xamante nouvelle bu neex la waaye tamit ah, lii nga xamante ne moo di retrait wala Orange Money yi rek daal dinay ah, delluwaat rek ci fa la mu nekkoon daal dinay dellu fu mu rek comme ni ko wolof Njaay di waxee lu yëngu lu nekk li ko yëngal moo ko ëpp doole man dama jàpp ne Orange moom jamono ji lii di wéef da leen a yëngal bu baax a baax ba xamatuñu sax fi ñuy taxaw xam rek ñu dugg ci suñ deuxième partie li nga xam ne mooy émission Thiaroye matin comme niñ de koy defee saa su nekk je rappelle que nous sommes en direct suñu page Facebook Thiaroye Info TV waaye tamit émission bi ñu ngi ciy ànd ak suñu sponsor leader di Mansour borom troisième nek fële ci tiaroy en face li nga xamné moy mooy comme nima ko waxé sank rek lepp lu nga xamné bëgg nga ko ci walum porte en fer porte en aluminium waye tamit ci walum meublement rek soo démé fële ci Mansour di nga ko fa am xam rek ñu jàll suñu deuxième partie émission moy li yéenekaay yi xëy waaw Omar euh, non lay démé ñu jall ci suñu deuxième partie émission dañ koy euh, dooreel rek euh, li gën a ci ëttu yéenekaay yi l'observateur tay lu ñu indil ci xëtam bu njëkk Omar l'observateur ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk natalu ki nga xamné moy président de la république Macky Sall mom sax ñi wax ci li nga xamné moy modification di code électoral bi jamono ji suscité na ay débat ba démb rek ñu ngi doon amali benn waxtaan fële ci assemblée nationale ci xëtam bu njëkk tamit ñu ci wàllum sax moom nee na consulté na li nga xam ne mooy pôle d'avocat bi pour topp yenn ci ay site internet waaye tamit nga xam ne dañ doon lu ñaaw ci deram bi waaw moom mu doon euh, lu doy ginnaaw bi nga xamante ne rek euh, kii di waykat bi Waly Seck amal na ko ba tey rek euh, dañuy desandi ci ëttu yéenekaay yi laas lu ñu indil tey ci xëtam bu njëkk bu njëkk ñu fekk nekk fi ba na naataalu ki nga xam moy président de la république Macky Sall mom moom sax ñi wax ne dafa bëgg décréter limitation de rassemblement notamment ci li nga xam moy 3 troisième vague coronavirus bi nga xam mi ngi dugg ci Sénégal ba tey tamit ci xëtam bu ñëk ñu fi gis ki nga xam moy Malik Sall nekk ki nga xam mo jité walum yoon wala justice fi ci Sénégal jamono ji sax amna 15 quinze députés yu nga xam dañoo signé benn pétition pour li nga xam mon mo fi nekk ministre ñu jëlé ko fi parce que limuy muy doxale moom ànduluñ ci benn yoon waye tamit ci xëtam bu ñëk jamono ji ñu fay waxtané walum parrainage waye tamit élection adjoint et maire Karim Wade ak ki nga xam ne mooy Khalifa Sall nekk ci guddi gu nga xam ne ba set jotagul xamul ndax dinañ dem wala duñ dem ci yooyee élection waaw ba tey rek Omar dañuy décidé ci ci ci xëtam bu njëkk comme ni ko yónnekaay yëpp defee ne mooy nataalu drapeau Sénégal ak benn urne bu nga ne dañ ciy dem yi ñu jëm élection yi nag jamono ji li andi coow muy code électoral bi jamono ji am na ay points yu nga xam ne ñu ngi koy commencé souligner mu amoon ay waxtaan entre ñi nga xam ne mooy gouvernement bi ak ñenn ci li nga xam ne mooy société société civile bi ba tey ci xëtam bu njëkk ñuy waxtaanee vaccin contre le covid 19 ñenn ñi sax jàpp ne vaccin boobu dañ ko war a def lu nga xam ne c'est obligatoire pour ñëpp rek mën a jotande ci boobu vaccin waaw Omar xam naa noonu lay demee mais ba tey rek euh, dañuy des ci ëttu yéenekaay l'exclusif lu ñu indil tey l'exclusif ci xëtam bu njëkk ñu fekk fa ñetti mandarga ku ci mel ni ñoo ngi fay fekk Alioune Ndoye moom sax nekk fële ci Fatick waaye tamit Matar Ba Dakar Plateau ak ki nga xam ne mooy baaragaay bu yëmbal si da ñoom ñëpp sax fi nekk seen ay gox jamono ji ci wàllum collectivité territoriale Sénégal am na ay menaces yu nga xam ne wala boog ay sànni xeer yu nga xam ne ñu ngi leen koy sànni ci seen gestion bi nga xam ne ñoo ngi koy yoree yenn ci ay gox goxaan waaw ba tey rek euh, dañuy desini ci ëtt yéenekaay yi Dakar Times lu ñu indil tey ci ëttam bu njëkk Dakar Times suñu fekk fa chanteur boobu di Wally Seck jamono ji sax ñu naan Wally Seck un phénomène qui dérange ñenn ñi sax dañoo jàpp ne li lépp lu nga xam ne dañ koy teg ci deram bi rek dafa nekk lu nga xam ne ay noon moo koy def waaye Wally Seck moom dafa nekk ci benn lancé bu nga xam ne carrière am moo laaj des fois muy ànd ak coow mais lépp luñ koy wax ci wàllum góor jigéen laalewu ci benn waaw Omar loolu la olof di wax siiw du jaami borom ba tey rek dañuy des ci ëttu yéenekaay yi Direct News lu ñu indil tey ci xëtam bu njëkk këram bu ñëk ñu fay fekk natalu ki nga moy ma jambal Madiambal ma jambal mom mi sax nekk en procès avec ki nga xam moy juge bobu de Téliko jamono ji mom mo ngi addu wax ne li nga xam moy condamnation bi ko condamné trois mois ferme nekk na lu nga xam ne teggul ci yoon benn yoon waye tamit ñom def nañ recours dinañ top ki nga xam moy di juge bobu di Téliko ci xatam bu ñëk ba tay direct news andil ñu natalu ki nga xam moy président de la république Macky Sall moom sax mo ngi demander à ce que ñu renforcer li nga xam moy dispositif de présent qui préventive tamit ñu gën a sensibiliser li nga xam ne mooy population sénégalaise bi ngir li nga xam ne mooy troisième vague bii di ñëw. waaw ba tey rek dañuy desandi ci ëttu yéenekaay yi 24 heures lu mu ñu indil tey ci xëtam bu njëkk. ci xëtam heures andil ñu nataalu ki nga xam ne mooy Antoine Félix Diome nekk ministre de l'intérieur fii ci Sénégal moom sax jamono ji am na ay mesures yu nga xam ne Macky Sall da kaa ordonné rek mu respecté ko notamment li li nga xam ne mooy wàllum élection locale yi mu gën ci préparer bu baax baax waye tamit président mo ngi magnifié résultat yi nga xamné amna na ci li nga xamné moy dialogue politique bi dialogue politique bi je rappelle ko amalon nañ ko ay weer ci ñu génn te jamono ji mom ñi ngi ci li nga xamné moy fin bi nek na réunion bu nga xamné amna ay décision yu fa am waye tamit amna yu nga xamné ne jubóowuñ ci ben yoon ba léegi wa Omar non lay démé ñu desandi ba tay ci ëttu yéenekaay bi Le Soleil lu mu ñu indil tey ci xata bu njëkk Le Soleil ñëw ak ci ñun élection territoriale janvier 2022 mu mel projet de loi portant sur le code électoral adopté nañ ko bu baax baax a baax te jamono ji nag ginnaaw ay waxtaan yu ñu am am na ay consentement yu fa am waaye tamit am na yu nga xam ne moom déggoowuñu ci benn yoon ba tey ci xëtam bu njëkk li nga xam ne mooy le soleil di ñu wax ne usine bu Kër Momar Sarr jamono ji war nañ ko inauguré mu nekk lu nga xam ne dina nekk benn ouf de que ci wàllum ndox moom gis nañ ne Dakar ak Sénégal nga xamante ne rek li li tubaab sax naan euh, l'eau est mhm. ba tey rek dañuy jàll ci etu yéenekaay alerte quotidien lu mu ñu indil tey ci xëtam bu njëkk ñu ci xëtam bu njëkk nataalu ki nga xam ne mooy Macky Sall moom sax muy alerte ci benn éventuelle troisième vague comme niñ ko waxee rek ak ni ko journal yëpp bindee jamono ji moom troisième vague nekk lu nga xam ne mi ngi lëmbe Sénégal ba bu baax a baax ba tax na Macky sax moo ngi wax ñu gën a respecté li nga xam ne mooy mesure barrière yi waaye tamit dàquñu benn yoon ñu àndiwaat li nga xam ne mooy ay couvre-feu waaye tamit tere yenn ci ay rassemblement ba tey ci xatam bu njëkk ñu fay fekk ki nga xam ne mooy moo ngi wax ci li nga xam ne mooy code de la presse bi waaye tamit ci wàllum homosexualité jàpp na ne presse bi ci code la presse bi nga xam ne dugal nañu wax ci yenn ci ay homosexualité mu nekk lu nga xam ne du dëgg du yoon parce que dañ ko war a dàq bu baax Omar loolu waaw nga xamante ne du dëgg du yoon ko war a dàq mais ba tey rek euh, dañuy desandi ci ëttu yéene kaay réew mi quotidien lu mu ñu indil tey ci xatam bu njëkk réew mi quotidien jëm ak ñun ci li nga xam ne mooy fête de tabaski ñuy wax ne jamono ji moom xar yi dañoo nekk lu intouchable parce que prix bi dafa cher trop mu nekk lu nga xam ne du baax benn yoon ci suñu ay parents waaye tamit ci képp ku nga xam borom kër nga rek ñuy ñaan li nga xam ne mooy gi mu jàpp ci bu baax waaw war na cee mën a bu baax Omar ñu ba tey rek euh, dañuy desandi indi ci ëttu yéenekaay tribune lu mu ñu indi tey ci xatam bu njëkk ci xatam bu njëkk ñu fekk fa nataalu ki nga xam ne mooy Karim Wade président Macky ak ki nga xam ne mooy Karim Wade ñu nekk ci guddi gu nga xam ne ba set jotagul parce que modification code électoral bi ñu doon waxtaanee ñoom jamono ji xamul ba tey fañ lañ féete ndaxte élection yi nga xam ne moom lañ jëm xamul ndax dinañ ci bokk am déet waaye tamit ñenn ñi sax di samp laaj a dem ci li nga xam ne mooy ñu wax ba tey ci xëtam bu njëkk ñu fekk fa nataalu ki nga xam ne mooy Waly Seck moom moomu sax Waly Seck jamono ji gis nañ ne dafa génnee li nga xam ne mooy jaasi ji rek pour gor képp ku nga xam ne da ko nar a fitnaal waaye tamit di jël lu nga xam ne lu ñaaw la di ko teg ci deram bi jëmale ci wàllum góor jigéen waaw ba tey rek euh, dañuy desandi ci ëttu yéenekaay yi critique lu ñu indi tey euh, ci xëtam bu njëkk ci bu njëkk ñu fay fekk nataalu ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr moom moomu sax jiitee li nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram jamono ji sax ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr positif au variant mu mel ni rek ci wàllum li nga xam xam ne mesure barrière ak waaye tamit sensibilisation Abdoulaye Diouf Sarr moom pare na pour xeex loolu bu baax bax ngir mbassum coronavirus mi gëna a ginnaw parce que jamono ji mom gis nañ ni mi ngi lëmbeewaat Sénégal bu baax bax baax ba tey ci xatam bu njëkk ñu fay fekk ki nga xamné moy mooy Khalifa Sall ak président de la République ak ki nga xamné moy Karim Wade ñom ñooñu sax ginnaw biñu leen tëjee ñu ñàkkoon yenn ci seen ay droits civils et civiques mu nekk lu nga xamné jamono ji ñi ngi ci guddi bu ba seet jotagul parce que li nga xamné moy élection yi ñu jëm xamuñ ba tey fan leen fété ñaar ñoon wa ba tey rek Omar euh, dañuy décider ci ci ëttu yéenekaay yi libération lu mu ñu indi tey ci xëtam bu njëkk ci xëtam bu njëkk ñu fekk fa lu tiis benn drame bu am fële ca jas benn ndaw bu am 6 ans ñu rey ko dóor ko ki ko dóor nag nekkul kenn ku duul ki nga xam ne mooy nijaay mu nekk lu nga xam ne lu ñaaw la waaye tamit nekk na lu nga xam ne dañ koy gis fii ci Sénégal bu baax a baax ci wàllum sécurité tamit territoriale ñi gis kii de nouveau commandant bi jamono ji moom mi ngi dugg bu baax a baax ci li nga xam ne mooy biir Sénégal waaye tamit di amal ay descente yu nga xam ne ay descente yu am solo la ba am na ñun jot a ci li nga xam ne bi mu toogee léegi waaw mu doon lu am solo ci fi nga xamante ne moo di euh, diwaanu Sénégal ba tey rek euh, dañuy desandi ci ëttu yéenekaay yi euh, Vox Populi lu mu ñu indi tey ci xëtam bu njëkk. andil ñu ki nga xam ne mooy maître Ousmane Seye moom sax mu nekk membre de la commission politique waaye tamit di nekk ku nga xam ne màcc na ci wàllu modification code électoral moom sax moom ñuy xamal ne am nañ plus de soixante à soixante dix modification du mu nekk lu nga xam ne moom ci doon yëy yàb bi rek te jàpp na moom modification yi nekk na yu nga xam ne des fois day am ay rëq-rëq waaye tamit des day nekk lu nga xam ne lu gën la ba tey ci xëtam bu njëkk ñu fekk fa nataalu ki nga xam ne mooy Macky Sall moom moomu sax moo ngi magnifié waaye tamit di am mbégte ak contentement ci consensus politique ak qualité bi nga xam ne amoon na ci li nga xam ne mooy dialogue politique bi fi amoon. Euh, noonu lay demee Omar ba tey dañuy desandi ci ëttu yéenekaay yi Le Témoin Quotidien lu ñu indi tey ci xatam bu njëkk. ci xatam bu njëkk ñuy waxtaanee ba tey wàllum troisième vague fii ci Sénégal jamono ji ku nekk rek yaa ngi yëy yàbbi ci boobu mbir ñenn ñi sax jàpp ne waa nguur gi la mooy ñu féetee ci Macky Sall ñenn ñi jàpp ne opposition bi jamono ji ñoo waral li nga xam ne mooy troisième vague bi que gis nañ fi ay nga xam ne ay rassemblement yu Ben mesure barrière la waye tamit ci walum li nga port masque bi amul kenn kuko respecté ba taxna jamono ji rek ku promotion des LGBT au Sénégal mu près de 2 milliards de francs CFA subventionné amna ay subvention yu nga xamné duggal nañ ko rek pour li nga xamné moy def promotion LGBT fi Sénégal mu nek lu nga xamné lu ñaaw la. Omar mu nek lu nga xamante lu ñaaw la ba tay rek dañuy desandi ci atu yene kay yi record lu mu ñu tey ci xata bu ñëk record xamna dañuy ciuk ciuk man mom toujours ma ngi en forme waye tay mom xamna dama lay bàyyi rek yow nga ciuk cukki. non tay dama lay bàyyi nga ciuk ciuk Omar vu que tay indi mu sama équipement xamna dama lay bàyyi rek inshallah suba su may ñëw ma indaale sama équipement. ñu jàll ci benen yeglé kay muy record record nak comme nim ko titré boole ñu am benn Espagne ak Italie jamono ji moom ñiy laaj rek ndax ki nga xam ne mooy itali dina gën a battre record yi jamono ji mi ngi war a jamaano tey ci 19h moom ak Espagne mu nekk match bu nga xam ne dina nekk match bu métti ci ñaaru kër équipe yooyu tamit ba tey ci xatam bu njëkk record andil ñu naataalu ki nga xam ne mooy Lionel Messi ak Cuadrado mu nekk benn demi-finale bu xam ne tamit dinañ ko am tey ci Copa América bi mu nekk demi xam ne dina métti trop je rappelle que jamono moo ngi finale parce que démb dafa dóor ki nga xam ne mooy Pérou un but à zéro jamono ji nag ñi ngi xaar ki nga xam ne mooy Messi wala ki nga xam ne mooy Cuadrado notamment à travers li nga xam ne mooy équipe am di Colombie ku ciy dem final. waaw Omar noonu lay demee mu mel ne aussi Espagne rek tey dafa euh, war a maanaam euh, jàkkaarloo ki nga xamante ne moo di Italie ginnaaw bi nga xamante ne daje woon na ci atum 2012 ci final. Euh, Italie ñàkkoon euh, ci kanamam xam naa tey jii moom Omar du yomb du yomb. du yomb benn yoon jamono ji moom match yi métti na trop ci wàllum coupe d'Europe bi waaye tamit ci wàllum Copa bi xam naa rek ñu jàll ci beneen yëglekaay. waaw dañuy jàll ci yéenekaay stade le quotidien du sport lu mu indil tey ci xëtam bu njëkk. ci xëtam bu njëkk mu andil ñu nataalu ki nga xam ne mooy Morata ak Insigne muy wax sax les clés de la première demi-finale demi-finale boobu sax tey lañ koy amal mu nekk ci Espagne ak Italie mu nekk demi bu nga xam ne moo ngi promettre bu mag mag waaye tamit ci xëtam bu njëkk ba tey di nataalu ki nga xam ne mooy Lionel Messi ak Jabata nekk attaquant bu Colombie ñoom ñaar war a laalante tey tamit ci beneen demi-finale mu ñeel li nga xam ne mooy Copa bi waaye tamit ci xëtam bu njëkk ñuy wax élection fédération sénégalaise de football bi nga xam ne day am 7 août jamono ji moom ñu ngi fay gis ay ténor yu mag rek ku ci mel ni Senghor ak ki nga xam ne mooy Mbaye Diouf jaa waaye tamit Saer ñoom sax ñu nekk ñoom ñëpp ay candidat pour jongante yi nga xam ne moo ñeel fédération sénégalaise de football. waaw Omar noonu lay demee ba tey rek euh, dañuy des desindi ci ëttu yéenekaay yi sunu làmb lu mu ñu indi tey ci xëtam bu njëkk ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk ki nga xam ne mooy Jules Balde moom sax nekk mag ci ki nga xam ne mooy Ama Balde moom mi ngi wax ne sax bu daw bu Modou Lo dawul dina xam mu nekk li nga xam ne day addu waaye tamit di artu ki nga xam ne mooy Modou waaye tamit ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk naataalu ki nga xam ne mooy Gris 2 Gris 2 je amoon combat ki nga xam ne mooy Abdou Diouf rek mu daan ci combat bu gaaw ci à moins de une jàpp nañ ne sax ñenn nañu naan 45 secondes la ko daan mu nekkoon combat bu nga xam ne combat bu mag la ba tey ci xëtam bu njëkk Gris 2 moomu sax moo ngi défier ki nga xam ne mooy le puncheur suis prêt à affronter Lac de Guiers 2 jamono ji mu ngi wax rek lii di combat am ak Lac de Guiers 2 nekk na combat bu nga xam ne suñ ko tëggee combat bu neex la xawma pourquoi pas doon na war naa mën a nekk na ba bu neex. bis puisque ñoom ñaar ñëpp xam naa ay ay ay ay demkat lañ. war na mën a nekk jamono ji moom moo ngi commencé dugg li nga xam ne mooy cours des grands mais man préfère mu jël combat jànq comme ni koy waxee rek jox ko ki nga xam ne mooy naa ne mooy daax loolu tamit avis la Omar waaye di la jaajëfal bu baax a baax xam naa xibaar yi buur na ma bàyyi la nga tàggatoo waaw comme ni ko Omar waxee rek euh, xibaar yi buur na di euh, remercier bu baax a baax ñi nga xamante ne suñu téléspectateurs yi ñu doon suivre euh, à travers a sama naataango bi nga xam ne mooy plateau Thiaroye matin waaye tamit di jaajëfal suñu mbokku internet yu Thiaroye info TV yëpp tey moom sama téléphone daf ma xaw sori ba tax na mënuma lire commentaire yi Mansour borom troisième menuiserie métallique Mansour nekk fële ca Tali Diallo soo wàccee li nga xam ne mooy pont en face Kër comme ni ma ko waxee sànq rek lépp lu nga xam ne bëgg nga ci wàllum porte en fer en aluminium waaye tamit ci wàllu wàllu meublement soo demee fële ci Mansour di nga ko fa am képp ku ko bëgg a jot nag mën nga ko woo ci 77 975 75 95 di leen jox dig daje à partir de 17 heures ci beneen émission bu mag muy càmburu bés bi jaa ngeen jëf